mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yegsi tey ci sunu bind bu mujj ci téere bii nga xam ne moom lañ doon topp lu tolloog ñetti at ci gannaaw ñu koy tuddee bulughul maram ba alxaafis ibnu xajar rahimahullah ñu yegsi ci la ci mujj bu dee da nga yor mool bi ma yor mooy ñaari page yi mujjee rek wala nga xam ne ñu ngi commencé ci xadiisu wa an buraydata radiyallahu anhu an buraydata radiyallahu anhu qaal sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajula kon mbokk comme niñ leen ko waxee téere bi dañ koo dajale mooy ki ko dajal di xaafis ibnu xajar def ko fukki téere ak juróom benn téere bee di wax ci wàllu laab wàllu julli wàllu xaj wàllu kaza ba muy fukk ak juróom benn mu mujjee ko ca la nga xam ne mooy zikrullah zikrullah boobu nga xam ne mooy li gën a yomb ci diine ji ca ay tuyaabam bari lool ca it moom la ñuy mujj yoonal ci ab jaam buy dund ci kaw suuf ndax la yonent bi sallallahu alayhi alihi wa sallam waxoon ni koo xam ne nii day la nga mujj wax mooy laa ilaha illa allah booy dee di tabbi aljanna yal na yàlla mujjal ko suñu làmmiñ loolu kon bokk mooy zikrullah kon incha allah ñu jël xadis yi comme niñ ko doon jàngee
وعن هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه الأربعة وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه
kon mbokk xadis bi jëkk wa an buraydata radiyallahu anhu qaal سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول يونت بي دي ماغي ديغ بن واي بوي ñaan di wax ne اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله إي يالا ماغي لاي ñaan di la ñaané ci ne man day seede naa ne yow yaay yàlla laa ilaha illa ant amul ko yeyoo ñu koy jaamu ko dul yow al ahadu samad yaay kenn as-samad yaay sang bi ñépp jublu allazi lam yalid walam yuulad yaay ki nga xam ne jurul kenn juru ko walam yakun lahu kufuwan ahad ca nekkul di la ñeel ab nawle kenn ku mën a doon fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ah laqad saala allah bi ismihi ñaane na yàlla ca turam wa nga xam ne day allazi ida su'ila bihi a'ta boo xam ne ku ko ca ñaan dana la may wa ida du'iya bihi ajab ku ko ca woowee dana la wuyu axrajahu al arbaa wa saxahahu ibni xibbaan ñu ngi noonu mbokk kon gis nañu ne suñu borom subhanahu wa taala dafa bëgg ñu koy ñaan ñaan boobu it da ngay gis ni jullit bi war nay seet lu mu koy laytaayale wasila bu muy doxale digganteem ak boroomam heure boo xamee ne nii mi ngi koy ñaan waa ji lan la ñaani yonent bi alei sam da koo dégg muy woo suñu boroom allahumma ay yàlla suñu boroom mi nga xam ni daganul ca yeyul ab jullit di woo keneen ku dul moom yaa muhammad yaa ali yaa abubakar mbokk loolu jaahil rek moo koy def yaa cheikh diw yaa sëriñ diw jaahil rek moo koy def waaye jullit di woo ku dul yàlla allahuma ay sama borom yàlla moomu nga xam ni newoon na yonente bi alei salaam ida saalaka ibadi anni fa inni qarib sama lay jaam samay jaam buñ ma lay laaj man ko jege laa ujibu dawata daai ida daan danaa nangu ñaanu woote kay woote su dee kay mën la woo kon mu ne ko ay yàlla maa ngi lay ñaan ngiri kat man seede naa ne yaa yàlla kenn yeewul ñu koy jaamu ko dul yow seede naa ne yaay yàlla yow yaay al ahad kenn mbokk yàlla kenn la kenn la ca jëmmam ja kenn la ca melokaanam ya kenn la ca kattanam ga kenn la ca ay jëfam na yàlla mel kenn mënu ko la muy def kenn du ko def na muy xaalam kenn jegewu ko jalla wa ala muy al ahad kenn la yow it yaay samad samad mooy sang bi nga xam ne ñépp ko soxlaal te soxlaalul kenn dara yàlla moo téye asamaan ak suuf yàlla moo taxawee malaaka yi yàlla taxawee lépp luy dund ak lu dee ci kattanam nga ci xam-xamam ba ci saytoom nga muy asamat yow yaay ki nga xam ne juróo kenn ca kenn juró la mi nga jëkk a dàq ak jur ndax ñi koy bokkaale ci kaw suuf loolu lañ ko jiiñ yahud yeen ñeneen moo jur uzayru nasaraan yi ne moo jur isa ila axir juróo kenn kenn juru la ca muy jógewoo ci dara ca dara jógewul ci yow mi ngi noonu dara jógewul ci yow loolu it la julit war a xam war koo gëm mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala waa ji teg ce ni amoo benn nawle kenn kum mën a doon mbokk ñaan gi yaakaar naa boo ko settantalee da nga xam ne waa ji dafa ñaane ci xul walaawu axat am déet ngi noonu daa nekk xul walaawu axat rek ca la sukkandikoo ak ñaanam looloo taxoon yonent bi alei salaam doon wax ne xul walaawu axat mooy ceeru alquran lu waral loolu mooy ixlaas la dafay wane mandarga yi tënk mandarga yàlla yi ca loolu daanaka mooy ceeru alquran bi mu waxee di yonent bi alayhi salaam ni moom day ñaane na yàlla tur wi nga xam ne ku ko ñaan mu may la woowe na yàlla tur wi nga xam ne ku ko woo mu wuyu la mi ngi noonu ñaan mooy nga ñaan sa soxla amma du'a nag mooy woo sa boroom imaam mu xettali la ci lu lay bëgg a lor wala yu deme noonu tur boobu nga xam ne mooy turu yàlla bu màgg boobee borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari bari bari bari mi ngi noonu ba nga xamee ni daal la gën a mucc ayib mooy suñu borom nëbb na ko ci ay turam yàlla moo xam doonte ne turu yàlla yi benn tuutiwu ci doonte ne turu yàlla yi boo ko ci woo mu wëyi la am na ñu bari ñoom dañ caa noppalu rek ñu ne turu yàlla bi gën a màgg daal mooy allah ñu ngi noonu ndax yonent yépp buñ koy woon ñoo allahuma muy allah waaye ala kulli xaal ñaan baa ngi nii ngal la way waxtu leen ko soo amee soxla nga ne allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد nga yombalal ma suma tukki bi nga yombalal ma soxna si nga yombalal ma nangam lépp loo soxla ñaanal ñaan gi nga wax sa soxla ci sa borom jalla wa ala ndax yonent bi nee na lii ku ko jiital sax ñaan loo ñaan yàlla may la ñaareelu xadis bi ca tamit bokk na it lu jullit di war a xam mooy lépp loo gis fokk ñu xam ne it am na lu koy mën a baare ca mooy charte bi mooy défaut ya nga xam ne it yonent bi alayhi salaam nee na boo ko defee yàlla du nangu sa ñaan bokk na ci loolu lekk lu xaraam wala ñaan lu xaraam wala ñaan lu munta nekk wala ñaan luy lorub jullit yii yépp moom boo ci muccee boo ñaanee yàlla may la ñaareelu xadis bi wa an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida asbaxa yaqul yonent bi di mësan xëy danaan allahuma bika asbaxna yàlla ci yow lañ xëyee wa bika amsayna ci yow lañu ngonnale wa bika naxya ci yow la ñuy dunde wa bika namuut ci yow la ñuy deeye wa ilayka nushur ci yowit lañ ñuy dajale jëmi ëllëg yowmal qiyaame wa ida amsa heure bu masaan ngonnal ay dugg ca ngoon qaala misla zalik daana wax lu mel nii illa annahu qaal wa ilayka almasir lu dul daf daan wax ci yow la ñuy mujj axrajahu al arbaa mbokk kon rasul salallahu alayhi wa sallam te daan bàyyi xel yàlla ni muy wëlbatee jamono di bàyyi xel xéewalu yàlla yi suñu borom mu ne fa subhaanallahi xiina tumsuun wa xiina tusbixuun mi ngi noonu sell ñeel na yàlla bu ngeen xëyee bu ngeen ngoon mi ngi noonu walahu alhamdu fi samawaati wal ard wa ashiyan wa xiina tuzhiruun mboolem ay temps suñu borom da koo tënk ci téeréem bu ma san xëy dana wax yàlla ci yow la ñu xëyee naam awalan mooy yàlla indi suba suba mooy lan mooy fi fajar jotee fi fajar jotee ñuy noddal fajar foofu la suba commencé ñu ngi noonu am na fu muy jeexee mooy suñ demee ba yoor yoor ba jeex dañ naan suba jeex na léegi nag ñoo ngi dugg ci njolloo yow yaay ci yow la ñuy xëy yaa indi suba muy benn yaa ñu fekk loo it suba ak bari ñoo xam ni biig ci guddi bi ñuy tëdd dara dalu leen waaye yàlla dogalul ñu fekk suba kon bi ka asbax naa gannaaw bi it yaay indi ngoon yaay wëlbati sa lu mu la neex jant baag suuf sa ba ngoon ñëw ngoon googi borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf ndax ngoon dañ caa jublu bu jant ba sooyee jëm kaw wala dañ caa jublu gannaaw takkusaan wala dañ caa jublu gannaaw tisbaar lii lépp boo demee ci làmmiñu arab da koy wax ngoon mooy li tubaab bi wax rek soir tubaab bu loo xëy bonjour mi ngi ci jublu matinée bi bonsoir mi ngi ci jublu ngoon gi ngoon googu nag mën na nekk lépp loo xam ne day nekk après midi bi ñu ne soir noonu it la demee ba nga xam ni li ñu tuddee azkarul masa muy zikru ngoon yi da ngay gis ne lu ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne mi ngi commencé takkusaan takkusaan timis ba xaaju guddi yëpp day dugg ci almasa ngoon zikru ngoon yoo ci bëgg a def def mën nga ko def heure boobu am nañ yegg sax commencé ko ci tisbaar almuhim yàlla yaa ñu fekkaloo tisbaar ci yaa indi tisbaar yàlla ci yow la ñuy dundee bi ka nax yaa amul kuy dund lu dul yàlla la téye yàlla mooy alxayyul qayyum ay mbokk jullit suñu xol yi di tëgg ndax ñun ñoo koy tëggal suñu bopp suñu nokk gi ndax ñooy nokkul suñu bopp kon kay buñ nelawee dee suñu lii changé ci ñun ay milliards de cellules chaque jour ndax ñoo koy def déedéet kon yàlla ñuy dundal ki dee yàllaa ko wéral ak roox yàlla koy génne ci jëmu mu dee te it yàlla ci yow la ñuy dajale ëllëg an nushur mooy yàlla dajale nañu ci seen bàmmeel yóbbu leen fam leen di àttee bu doon nag far ngoon la day wax lii mu wax lépp daal di ne ci yow la ñuy mujj almasir te itamit ab jullit di bàyyi xel loolu mooy lu mu yàgg yàgg dañ la mës a génn sa bàmmeel dajale la taxawal la sa kanamu boroom li nga daan def ci suba yi ak ngoon yi ñu gaaralal la ko su dëppoo ngërëmal yàlla àjjanaay di sa wàccuwaay yal na yàlla boolu ñu ca su dëppoowul feneen nga jëm loolu kon ku ne da cee war a bàyyi xel suba ak ngoon ñi ngi liggéey ci yow borom xam-xam yi dañ naan ni liggéeyil ci ñoom ñu ngi noonu te mooy suba ak ngoon ñi ngi wàññi sa temps suba gu dem am na lu mu yóbbu ci yow ngoon gu dem am na lu mu yóbbu ci yow bis bu jàll am na lu mu yóbbu ci yow su jeexee jeex na yow it fexeel ba lu ñëw nga def ca lay ngërëmal yàlla xadis bi ci mujjoon mooy xadisu anas qaal kaana aksaru duaai rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alei salatu wasalaam day li ëppoon ci ay ñaanam mooy rabbana atina fi dunia xasana yàlla yàlla nag ñu may ci àdduna la baax wa fi laaxirati xasana may ñu ci àllaaxira la baax wa qina azaba naar te nga musal ñu ci mbugalum sawara muttafaqun alayhi mbokku ñaan gi anas mooy xaadimu rasul moo àndoon ak yonente bi alayhi salaam ñu tegee tànk madina ba bi yonente bi alayhi salaam di faatu yàlla may ko mu dund téeméeri at ak lu topp nee na yonente bi alayhi salaam li ëppoon ci ay ñaanam mooy yàlla yàlla ñu may àdduna lu baax ca mooy lépp loo ñuy may ci àdduna def ko muy lu baax ñeel ñu xasana lépp loo ñuy jagleel ci àdduna tànnal ñu la gën a baax nga jagleel ñu ko ci àdduna àllaaxira it nga tànnal ñu fa la nga xam ne mooy la baax ci mi ngi noonu bokk la gën a baax lu yàlla di defal jaam ci àdduna mooy may ko ngëm gu sell dëppale ko ak sunna may ko istiqaama may ko ixlaas gannaaw ba nag wér gi yaram nga doog a ñëw soxna yu baax yaag doom yu baax yaag dëkkandoo yu baax yaag kaza wa kaza yàlla loo may tànnal ci àdduna yàlla doon lu baax nga dem àllaaxira it mucc ci bàmmeel mucc ci mbugalu bis pénc jéggi sirat ci jàmm tàbbi aljanna ci jàmm loolu mooy la baax ci àllaaxira te nga musal ñu ci safara lii mooy mbir bi léegi la nga dégg ay ñu ñuy tuddee ay suufi wala leneen jàpp ne yàlla boo koy jaamu waroo ko jaamu ngir àjjana wala ragal sawara da nga ko war a jaamu rek ngir moom déedéet yàlla dañ koy jaamu ngir yeyoo na ko waaye dañ koy jaamu ngir xemmem àjjanaam mucc ci sawaraam looloo tax ba loolu ëppoon ci yonent bi doon ñaan benn waay jàppante nag Muaz ci xadis bu gudd léegi ah Muaz daan jiite di tari saar yu gudd moom mu ber julleem tari Faatiha para ci dem bi ko yonent bi laajee mu ne ko Muaz day ñëw fekk sonn nañu mu ñu indil baqara lu kenn xamul man nag dama am liggéey bu ma war a def julli saak juru moo tax damay jóg rek tari fatiha man julli suma julli suma paree ni yàlla yàlla nag ma may aljanna musul ma ci sawara ndax man yow mu ne yonent bi alayhi salaam yow yaag Muaz seen ñaan yu gudd yooyu man xool ma ko yonent bi nag na ko wa xawlahuma nudandinu suñ ñaan yi li muy gudd gudd gudd paasewul ñaan yàlla tabbal ñu àjjana musul ñu ci sawara yàlla na yàlla defal ñu ko kon loolu mooy mbir bi loolu tax ba ki nettali xadis bi di anas ibnu malik radiallahu anhu am na ñuy nettali dañoo ñëw seet si ko bi ñuy dem ñu ne ko anas ñaanal ñu waay mu ne rabbana atina fi dunia xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaban naar ñooñu dem ñu toogaat ay jamono ñu ñëwaat waxtaan bay dem anas ñaanal ñu ca it loolu ñu xam ne yonent bi sam daana ko def abdullah ibnu omar radiallahu anhu nee na nee na ñu ma sànni dajeeg yonent bi bay dem lu dul ñaanal nañu ñaan googu commencé allahuma aqsim lana min xasiyati ma tahul bihi baynana bayna maasiyati anas bi mu waxee ñaanal lu mu waxaat même chose rabbana atina fi dunia xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaba annar benn caamin bu fa nekkoon nag waaw anas doo doo ci dolli leneen mu ne ko wax ma lu manqué ma dolli ko ci diin su dee yàlla jox na la la gën ci àdduna jox na la gën ci àllaaxira lu ci manqué déedéet dara lépp ci dugg wala portable bu baax sax dugg na ci ñaan gi mu ngi noonu même la baax te it bari na loo bëgg fekk baaxul ci yow bari na li ngay bañ fekk looloo baax ci yow suñu borom mu ne man maa xam xamuloo su ko defee kon la la ñaanal yàlla tànnal la rek la la yàlla tànnal nga gërëm ko. yaa ngi dégg nga tànn nga gërëm ko ndax sa xam-xam dafa gàtt kon mbokk loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaal na ki dem di wër kaaba gi boo commencé ngay ñaan di wër di ñaan di wër di ñaan boo yegsee nag ba fi ñuy tuddee ruknul yamaan yi mooy pii bi mujj avant ngi ci xajrul aswad diggante boobu moom la gën lan fay ñaan mooy rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaban nar ndax mooy ñaan gi tënk mboole mi ñaan te it jàpp naa ne ab julit loo saggan saggan saggan góor ak jigéen war nga koo mën rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaban nar mi ngi noonu
وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أخرجه مسلم
kon xadis bi ci topp وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي اي يالا يال نك ما جيغال ساماي نجومتي وجهلي اك لما ريري واسرافي في امري اك سما جيغي دايو سي ساماي مبير وما انت اعلم به مني اك لاغا خامني يا كو غنا خام سي مان سما بكان بي يا ماكو غنا خام اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي جدي yàlla yal nag ma jéggal la nga xam ne nii mooy sama la ma def ful la aljadd mooy li nga xam ne da nga caa dogu bokkul ak kaf mi ngi noonu allahumma fir li jaddi wa hazli yàlla yal nag ma jéggal la nga xam ne day dëggu ci man ak la nga xam ne dama cay kaf wa qat'i wa amdi ak la ma juum ak la ma tey wa kullu zalika indi ca loolu lépp day nekk na ci man mi allahuma xfir lii ma qaddamtu ay yàlla yàlla nag ma jéggal la ma jiital wa ma axartu ak la ma yéexee ci ay bakkaar wa ma asrartu ak la ma nëbb wa ma aalantu ak la ma feeñal wa ma anta aalamu bihi min nii ak la nga xam ne xam nga ko yaa ko gën a xam ci man ci man mi antamul muqaddim yaay jiital lu la neex wa antal muaxir yaay yéexe lu la neex wa anta ala kulli shay'in qadir yaa am kàttan ci lu la neex mi ngi noonu mbokk gis nañu rasul sallallahu alayhi wasallam façon jéggulu bu nekk daana ko jéggulu boroomam jublu ci ñaar benn bi jéggulu yàlla ak jaamu yàlla la même boo amul bàkkaar waaye jublu ci it xeet bi di xam lu ñuy jégguloo seen boroom ci xadis bi li mu jëkkee mooy yàlla yàlla nag ma jéggal li ma juum naa am mbokk suñu boroom jéggal na xeet bi li ñu juum waaye teewul boo yëgee ne da ngaa juum it da ngay jéggulu sa boroom xatta bakkan li muy foor foor soo ko reyoon ca teyoo ko yàlla du la ca toppee bakkaar boobu waaye nag fokk nga jéggulu yàlla juum nga wax musiba juum def musiba loolee da ngay gis ne da ngay jégalu sa borom moom it loo xam ne da nga koo réere ak bari ay mbir yoo xam ne xamoo ko woon ci jaamu yàlla nga nekk ci juróom fukki at bañ leeral na la ah ndekete kat lii demewul woon nii mi ngi noonu ci wàllu jaamu yàlla lu mu mën a doon wala nga doon def dara jàpp ni lii kat jaamu yàlla la wala bakkaar boo jàpp ne ah lii kat dara newu ci ndekete yoote musiba la loolu mooy jeex la yàlla la ma réere woon yépp yàlla moo ko baal yàlla sama jiggi dayoo israf fi amru fil amru jiggi dayoo ci jaamu yàlla yi jéggi dayoo ci bakkaar yi jéggi dayoo ci dépense yi yàlla dafa bëgg lu ñu def ñu dégg doomu ci bëggul ñu dégg dayoo ci dara lépp loo xam ne jéggi naa ca dayoo ay yàlla yàlla nga ma ko jéggal yàlla yi di nga xam ne yaa ko gën a xam ci man lépp ca xaw ma ko yàlla nag ma ko jéggal ay yàlla jéggal ma la nga xam ne ba ma koy wax dama ca dogu jéggal ma la nga xam ne kaf rek laa ci jublu woon kaf laa ci jublu woon mi ngi noonu te fekk ne musiba la rasul sallallahu alayhi wasallam nee na nit dana wax benn wax jàppul sax ne wax na lu garaaw wax jooju yàlla mere ko ci tàbbal ko ci sawara lu ëpp juróom-ñaar fukki at loolu ila axiri gannaaw bi ay yàlla lépp loo xam ne maa ko tayit jéggal na ko te it doomu aadama bi yàlla mën na koo nattoo mu tay bàkkaar def ko doon lu mu wax la lu muy jëf la yàlla loolu yàlla nag ma ko jéggal yàlla loolu lépp de am na ci man ca mooy nangu na yow aji tooñ nga loolu it dafa bokk ci li yàlla bëgg jaam bi di ko def gis ngeen suñu borom yonente bi alei salam ngi jàngal abou bakar na ko booy jéggalu yàlla day wax allahuma inni zalamtu nafsi zulman kasira yàlla tooñ naa sama bopp tooñ yu bëri jàng nañ saydul istigfar dimanche bu la passé mooy wa abu laka bi zanbi yàlla reconnaître naa la man aji tooñkat la moo tax mu ne kullu zalika indi ay yàlla yàlla nag ma jéggal ma qaddamtu da nga xam ne jiital naa ko ci bàkkaar wa ma axartu ak mboolem bàkkaar yi nga xam ne dafa goma ko it yàlla yàlla nag ma ko jéggal xam ngeen suñu yonente alayhi salatu wasalaam moom yàlla garantir na ko ne ko li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zanbik wa ma taaxar yow moom yàlla baal na la lépp loo nar a def ak loo nar a loo loo nar a def lépp ak li nga mës a def lépp lu tax yonent bi di ko jéggalu kon ngir yàlla daa bëgg loolu yàlla daa bëgg jaam bi jéggalu donte ne moom jéggal na ko li ma leew suñu borom mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi yàllaa ki malaakam ñu ngi julli ci yonent bi yéen jullit ni julli leen ci moom nga ne allahuma salli ala muhammad yàlla kay wax ne mi ngi julli ci yonent bi am déet lu tax nga naan allahuma salli ala muhammad yàlla daa bëgg koy ñaan loolu lu tax même boo yégee ne amoo bakkaar yàlla daa bëgg ku koy jéggalu loolu tax rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko loo nas loo mas a def ak loo nar a def baal naa la lépp waaye teewul moo dàqoon jéggalu ci jaami yàlla yi maanaam wax ay yéen nit ñi day leen jéggulu seen borom bés bu nekk day danaa jéggulu lépp juróom-ñaar fukki yoon danaa tuub di jéggulu yàlla beneen riwaaye mu ne danaa jéggulu téeméeri yoon bés bu nekk mi ngi noonu ndax loolu yàlla da ko bëgg ay yàlla yàlla nag ma jéggal la nga xamee ne nii dama ko nëbb kenn yëgu ko yàlla yàlla nag ma jégga jéggal la ma feeñal ba am am jàmm bu ko yëg ay yàlla yàlla nag ma jéggal lépp loo xam ci man antal muqaddim yaay jiital ku la neex yaay jiital lu la neex te mbokk suñu boroom mooy jël nit ki ko neex jiital ko ci gudd fanam ci njubam ci xam-xamam ci mbaaxam ci njéggalam ci yërmandeem moo ciy jiital ku ko neex mooy yeexee ku ko neex cay jaamam ci yërmandeem ci njéggalam ci yépp ah bañ ko koo jagleel ay wërsëgam ay yu mën a doon yàllay jiital ko neex yàllay desal gannaaw ko ko neex te it yàlla yaa am kàttan ci lu nekk yaa am kàttan ci lu nekk mbokk kon loolu di ñaan bu am solo boo xam ne mënoo ko ci arab ngallaawaay dee ko ñaan ci wolof rawatina yow mi nga xam ne yaay déglu kase bi yàlla yàlla nag ma jéggal samay njuumte lam jéggal ma la ma réere jéggal ma sama jéggi dayoo ci samay mbir ak lépp loo xam xam loo xam ne yaa ko gën a xam ci man yàlla yàlla nag ma jéggal la ma dogo yàlla nag ma jéggal la may kafe yàlla nag ma jéggal sama njuumte ak la ma tey ak lépp loo xam ne dafa nekk ci man yàlla yàlla nag ma jéggal la ma jiital ci bàkkaar ak la ma mujj ci bàkkaar la ma nëbb ci bàkkaar la ma feeñal ci bàkkaar ak lépp loo xam ne xam nga ko yaay jiital ku ko neex ku la neex yaay desal gannaaw ku la neex te yaa am kattan ci lépp amma xadis bi mujj a jël وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ay yàlla yal nag ma yéwénalal sama diine mi nga xam ne sama mucc mbir yépp ca la nekk wa aslih li duniyaaya alati fiha maashi yéwénal ma sama adduna gi nga xam ne ca la nekk sa dund wa aslih li axirati alati ilayha maadi nga yéwénal ma sama alaxira nga xam ne fa lay mujje ji ay fa laa jëm dafa mujje ji fa lay dellu ëllëg yowm alqiyaama mooy sama delluwaay wajal li lxayaata ziyaadatan lii fi kulli xayr yàlla na nga def ak dund mu nekk ak ndollante ñeel ma ci bépp yiw wajal il mawta raxatan lii min kulli shar ca nga def dee muy at yi lu may dalal ñu noon di ma musal di ma dalal ci lépp loo xam ne nii aw ay la mi ngi noonu bokk ko ñu ñaan gi gis nga suñu yonent alayhi salaam mi ngi ñaan yàlla yàlla yéwénal ko diineem ndax nee na ci loolu la ay mbiram di mucce mbokk doomu aadama bi suñu borom nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haysu la yahtasib ki ragal yàlla na ma ko war a ragale yàlla dana ko may génnuwaay ci ay xat-xatam di ko wërsëgal fu mu ko foogewul moo tax mu ne ko yéwénal ma sama diine ndax sama mucc mbir ci la nekk waaye sama adduna it yéwénal ma ko ndax sama dund ci la nekk te mbokkit julli dafa war a ñaan fi dunia xasana ndax àjjana ju ju dal ca ngay tale jaamu yàlla doomu aadama bu amul sécurité pour mu jaamu yàlla dana jafe doomu aadama bu amul lu mu lekk jaamu yàllaam dana jafe doomu aadama bu nekk ci ay xat-xat jaamu jaamu yàllaam dana jafe kon yéwénal ma sama adduna ba ma mën a jaamu yàlla gis ngeen ibrahima alayhi salaam bi muy dalal njabootam ci makka na am ñaanal na leen ak njub waaye ñaanal na leen ak wërsëg warzuq ahlahu min asamarat ngir ñu mën a laasal te mën a jaamu yàlla ay yàlla yéwénal ma alaxira ndax kat alaxira kat mooy sama delluwaay lu muy yàgg-yàgg alaxira laa jëm yàlla yàlla na nga def dund ci man muy luy lu may dolli aw yiw ziyaadatan li fi kulli xayr mbokk fanu gudd du mooy li am solo li am solo mooy ngay dollee ko mbaax bis boo dund la nga ca def lu baax ëpp la nga ca def lu bon bis boobee day ndollante la cag dund waaye yonent bi alei salaam ne ki yiis ci nit ñi mooy ki gën a gudd fan ci ay jëfam baaxul ki gën nag mooy ki gën a gudd fan ay jëfam baax nit ki boo koy ñaanal yàlla nga am fan wu gudd da nga naan ko yàlla na la yàlla may fan wu gudd wu dëppoog ngërëmam mi nga noonu fekk na fan yooyu yëpp da nga cay jëf ngërëmal yàlla moo tax mu ne yàlla nga def dund muy ndollante ci man ci bépp yiw waaye it heure bu dee di ñëw ci man yàlla na doon dee goo xam ne danoo dox sama digganteeg léppi ay am na ñoo xam ne keroog ba ñuy dee lañ mucc ci ay abadan abadan yàlla na yàlla boole ñu ci ngi noonu keroog Fatima ba mu tuumee ba mu tiimee baayam ba rasul sallallahu alayhi wasallam naan yaa kurba abati ay waay sama feebaru baay bi tar na ndax moom sukuraatam double sukuraat la ko yàlla teg mu ne ko na saxal dal laa karba ala abatika baadal yowm gannaaw tey ala abika baadal yowm gannaaw tey sa baay dootul gis coono te mi ngi noonu moom la borom bi subhanahu wa taala di wax naan fa amma in kaana min al muqarrabin fa rawxun wa rayxaan wa jannatu naim ki jaamu yàlla bokk min al muqarrabin la koy teeru kay mooy àjjana ñu ànd ak parfum yi koy dalal ak xëj yu neex ya ak àjjana yi xéewal wa amma in kaana min ashabil yamin fa salaamun laka min ashabil yamin xatta bu bokk ci ashabil yamin it bu xisee ba dee rek salaam jàmm kese lay dajeel amma in kaana min almukazzibin dalin fa shay'un axar kooku moom beneen mbir la waaye yàlla ko di xaal julit dafay ñaan yàlla yàlla na dee dox sama digganteeg lépp luy ay mi ngi noonu raaxatan li min kulli shar xadis boobu imam muslim soloo na ko mi ngi noonu
وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان ينفعني رواه النسائي والحاكم وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه نحوه وقال في اخره وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار وإسناده حسن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار
سبحان الله
وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال مصنفه الشيخ الإمام
kon mbokk waan anas radiallahu anhu qaal كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أنفعني بما علمتني يلا يلا ما جرين تلين ما خمل وعلمني ما ينفعني يلا يلا ما خمل لما جرين وارزقني علما يلا ما ورسق الخمخم ينفعني بما جرين رواه الحاكم نصائي والحاكم kon mbokk ni ngeen dégg xadis boobu rek noonu la mbokk xam-xam doomu aadama dana ko am ca jëriñoowu ko yal na yàlla musal ñu ci dina ay ñu jàng ba xam li yàlla bëgg waaye malheureusement jëriñoowuñ ko dañoo safaanoog la nga xam ne mooy xam-xam boobee looloo tax mu koy ñaan yal nag ma jëriñ ci li nga ma xamal gannaaw bi yàlla boo may xamal yan nag ma xamal lu may jëriñ ca yonent bi alayhi salaam daana ñaan yàlla musul ko ci xam-xam bu amul njëriñ te it doomu aadama war ngaa bàyyi xel lépp loo jóg di ko jéem a xam nga laaj ndax lii am na njëriñ ci sa diine wala am na njëriñ ci sa àdduna bépp xam-xam bu amul njëriñ ci sa diine amul njëriñ sa àdduna loolu jarul xam amul njëriñ jeex na yàlla yàlla nag may wërsëgal xam-xam ya may jëriñ mi ngi noonu am na bu dee xadis bi ci topp di bi tirmisi bi min xadis abi hurayra radiallahu anhu naxwa naxwu wa qaala fi axirihi yonent bi daana wax wa zidni ilma yàlla yàlla nga dolli sama xam-xam alhamdulilahi ala kulli xaal ñi ngi sant yàlla ci nu ñu mën a mel ci xaal bu ñu mën a nekkee wa auzu billahi min xaali ahli naar doonte ne ñu ngi muslu yàlla di melowoo melowaayu melokaanu waa sawara wa isnaaduhu xasan kon it lii da cay dolli rek mbokkoo julit di war a sant yàlla ci lépp lu ko yàlla melal maadaama boole ne la ci julit yi rek xamal ne am nga xiiwal gu rëy rëy rëy la ngay muslu rek mooy yàlla bu la yàlla melal ci melokaanu waa sawara jeex na ba ko jullit bi mucc ci melokaanu waa sawara kooku dajale na xéewal yépp loolu moo tax jullit mbokk lu la mën a dal ci nattu la ngay wax mooy alhamdulilah ala kulli xaal ñàkk la feebar la catastrophe la lu mën a doon la ngay wax mooy alhamdulilah ala kulli xaal ñi ngi sant yàlla ak fu ñu yàlla mën a féetale mi ngi noonu أما حديث بجتاجي لحديث سنة عائشة رضي الله عنها قال علمها هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم موقع جنجل نيان جيني بغوخ اللهم إني أسألك من الخير كله yàlla maa ngi lay ñaan aw yiw léppam aajilihi la nga xam ne moo ca gaaw mi ngi noonu wa aajilihi ak la nga xam ne moo ca yéex ma alimtu minhu wa ma lam aalam la ma ca xam ak la ma ca xamul wa auzu bika min alcharri kulli maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ay yépp aajilihi la nga xam ne moo cay gaaw wa aajilihi ak la cay yéexe ma alimtu minhu wa ma lam alam la ma ca xam ak la ma ca xamul allahuma inna asaluka min xayri ma saalaka abduka wa nabiyuk ay yàlla maa ngi lay ñaan ci yiw bi ma la doon ñaan sa jaam bi di sa yonent wa auzu bika min charri ma aaza minhu abduka wa nabiyuk di la ñaan nga musal ma sa ci ay wa nga xam ne daana ca laqoo ci yow sa jaam ba sa yonent ba allahuma inna asaluka aljanna wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal yàlla maa ngi lay ñaan ajjana ak lu may jegal ajjana ci wax ak jëf wa auzu bika min annar maa ngi lay ñaan nga musal ma ci sawara wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal ak lu ñu cay jegeel ci wax ak jëf wa asaluka an tajala kulla qadain qadaytahu li xayra maa ngi lay ñaan nga def bépp dogal booy dogal ñeel ma mu nekk dogal bu yiw mi ngi noonu axrajahu ibnu xabbaan mbokk kon lii suñu ay Aïcha nee na yonent bi moo ko jàngal yonent bi daana ko jàngale ci ñu koy wax ci taaya sa taaya bu mujj boo musuloo ci charri masihi dajjal nga ñaan ñaan gi doonte na tunkuwul ci a ci taaya ñaan la gu matale ci lépp bu ëmb lépp ndax kat yow yaa ngi naan yàlla yàlla nag ma may yiw lépp lu mën a doon la cay gaaw ak la cay yéex a ñëw la ma ca xam la ma ca xamul yàlla lépp luy ay yàlla nag ma ci musal la cay gaaw a ñëw ak la cay yéex a ñëw la ma ca xam ak la ma ca xamul yàlla maa ngi lay ñaan a ca la nga xamee ne nii moom la la say jàmba sa yeneente ba doon ñaan na nga xam ne abdullahi wa rasulu ñaar la yu ñuy boole mooy booy taaya ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu boo jàppee ba pare ila axiri ndax ñaar yooyu kenn waru ko teqale yonent bi alayhi salaam boo leen abdullah day wane ne jaam la kenn du ko jaam wa rasuluhu mooy yonent yàlla ne kenn waru wuute ak moom ci jaamu yàlla abdullah jaam la kenn waru koo jaamu rasulullah la yonent la kenn wurte wuuteeg moom ci jaamu yàlla mi ngi noonu abduka wa nabiyuka yàlla yàlla nag ma musal ci lépp loo xam ne yonent bi daal na ca muslu yàlla yàlla na nga may ajjana ak la may jegal ajjana ci jëf ak i wax yàlla na nga musal ci sawara ak la may jegal sawara ci jëf ak i wax yàlla bépp dogal booy dogal mu jëm ci man yàlla na nga ko def mu doon dogal boo xam ne yiw la ci man ndax ñaan gi bàyyi na dara déedéet bàyyiwul dara mi ngi noonu amma nag lii mu tëje téeréem bi te boo demee ko mel ne albuxaari it dana koy tëjee téere askaaram ba ci saxiixul buxaari mooy an axraja cheikhaan mooy buxaari muslim solo nañu an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na kalimataan ñaari kàddoo ngi nii xafifataani ala nisa ala xabibataani ila rahman yàlla rahman da koo sopp lool xafifataani ala lisaan mu woyof ci làmmiñ lool ci boo koy wax saqilataani fi lmisaan mu diis ci balance pénc lool subhanallah wa bihamdi may maa ngi tudd sell ak yàlla ànd ak di ko sant subhanallah alazim maa ngi tudd sellug yàlla mu màggi mi mbokk kon ñaari kaddu yi da ngay gis ne mooy kaddu yi alxaafis ibnu xajar tëje téeréem bi muy kaddu yi yàlla bëgg lool mu woyof ci làmmiñ lool subhanallah bihamdi loolu une seconde la une minute mën nga cee wax soixante subhanallah bihamdi ci benn minute dix minutes nga wax ci six cent mi ngi noonu subhanallah subhanallah alazim subhanallah alazim subhanallah par seconde subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi par seconde nga xool nag yow jullit ñaata ngay perte journée bu nekk ci askar yooyu nga xam ne mën nga cee am ay junni junni junni ca mu diis lool ci balance bi si penc ca suñu borom yàlla bëgg ko lool mi ngi loolu nga la waay ñu bàyyi ci xel am na bis ñu waroon daje fii dars bulughul maraam amul ay ngant xadis bi lañu yóbbaloon mbokk yi te it la ko sabab gis ngeen kii moom la tëjëb téeréem benn ci imaamu soodiyee yi day nettali ne benn góor goo xam ne tànk yi baaxul ci chaise lay toog di julli dafa ñëw julli si ba pare mu daal di pousse chaise bi pousse chaise bi ba ñëw ci man dama imaam man kat sama xel dafa neexul sama njàng kuyur waaye nag jàngal ma loo xam ne su ma ci saxee yàlla dina ma bëgg nee na man adduna dafa wëlbatu ko lan laa koy jàngal ndax sharia ni mu yaatoo waaye sama xel dem ci hadis bi ma ne ko ah yonent bi alayhi salaam de nee na ñaari kàddoo ngi nii woyof na ci làmmiñ lool yàlla bëgg ko lool mu diis loolu ci balance bis penc mooy subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim mu ne ko jërëjëf góor gi ba mu fa jógee ba mu demee këram hey yonent bi alayhi salaam nee na ñaari kàddoo ngi nii yàlla bëgg ko lool mu woyof ci làmmiñ lool diisalul ci balance bi spec subhanallah bihamdi subhanallah alazim bu demee marché ay yéen waa marché bi yonente bi alayhi salaam nee na kaza ba kaza bu demee ak ciit ay yéen waa ciit du dajeeg mbooloo mukk ca waxu leen loolu yàlla dogal ñu ne bi mu sukuraatee mu dem ba ñuy ñàkk yaakaar ci moom njaboot gaa ngi ñëw hôpital médecin bi ñëw ne ah wax na góor gi di fi mu toll nag vraiment yegg na ci li ñu tuddee phase finale bi ko médecin bi tiimee mu mel ne am na lu mu bëgg a wax médecin bi ñëw jege ko mu ne ko yaa docteur yonent bi alayhi salaam nee na ñaari kàddoo ngi woyof ci làmmiñ diis ci balance bi spent yàlla bëgg ko lool subhanallah bi hamdi subhanallah azim loolu la mujjee wax daal di faatu mi ngi noonu mi ngi noonu loolee bokk da ngay gis ne kon mbir la boo xam ne dañ koy yóbbaloo biir oto ya biir waañ ya yoonu marché fu ñu mën a nekk di liggéey gàllawaay suñu làmmiñ nañ koy taqal subhanallah bihamdi nañ koy taqal subhanallah alazim yonente bi alayhi salaam ci li ñu passé nee na ki xëy suba wax subhanallah bihamdi téeméer yoon dañ ko bal ay bakkaaram bu bëri woon sax ba mel ni pour tu géej loolu kon mbokk moo doon suñu xadis yu mujj di téere bi dajale mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept ci ay xadis xadis yi mooy lan mooy la suñu borom jaarale ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu jottali ñu ko mu ne nag yaa ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa li rasuli ida daakum lima yuhyikum ay yéen julli ji wuy leen yàlla ak yonentam bu ñu leen woo ci li leen di jëriñ mbokk ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala woote ñi yàlla woo ci téeréem bi lépp lu ci ay ndigal yàlla na yàlla dëpp lañu ñu def ko lépp lu ci ay tere yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu moytu ko yàlla na yàlla boo lañu ci ñi nga xam ne dañoo wuyu ab yonentam di jottalil ab yonentam di ànd ak moom ci firdawsil ala yi gën a kawe yàlla na yàlla fayal ñu xaafis ibnu xajar fayal ñu ña ko doon jàngal ak képp koo xam ne fexe na ba téere bi ñëw ci suñuy loxo ñoom ñëpp yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul leen mbooloo mi ko doon topp di ko jàng it na doon ci jàkk ji la wala ci internet bi la yàlla na yàlla subhanahu wa taala boolu ñu ci mboolum ahlu sunna ñi gëm aayey borom bi gëm hadis yonent bi tënku ci di ko jaamoo suñu borom yal nañu yàlla dekkal ñu dekkal ca mboolum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ñu mujj gu rafet defal ko suñuy waajur ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa mbokk alhamdulillah xam naa gannaaw ba ñu suñu borom subhanahu wa taala wërsëgalee ñu jeexal téere bii di bulughul maram ñi ngi amoon yéene jàngale benn téere boo xam ne suñ maam yi doon nañ ko jàngi fii ci réew mi di téere fiq bu am solo ñu koy tudde risaala ëmb na pas-pas yu am solo gannaaw ba ëmb fiq bu am solo incha allah dimanche bii di ñëw ci moom la ñuy tàmbale am na ñi nga xam ne dañ koo soxla am na ci rawatina téere bi di samaru daani charhu risaala la mi ngi nii ñu bind ko en arabe bii it dañ koo traduire ni en français en arabe bi mi ngi jaay fii ci buntu jàkka bi 2000 francs français bi it mi ngi jaay fii 3000 francs loole ngir ñi nga xam ne dañ koo soxla ñu xam ne ñun nag li ñu yor moom jaay ñu ko ci jàkka ji fay koy jaay ma ma nga ci buntu jàkka ji ala kulli xaal képp koo xam ne ni mën na koo fexe jënd ko pour tapp ko wala jënd ci yu bëri sax jox ñu amul moom la ñu bëgg a tàmbalee incha allah dimanche bi di ñëw di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla def ci lu ñuy yokk ci suñu wàllu diine di ñuy yokkit di gërëmam bu ñuy gërëm jàll wa ala naam waaw yaakaar naa xalaas bu amul ab kii bu urgent moom des na waaw bisimilah waaw.
bàmmeel waaw comme maanaam liñ ne kenn mën sa ñàkk jaar ci sàppu bàmmeel bi njëkk boobu loolu amul am na benn ñaan boo xam ne wala daal dafa loo xam ne nii amul kenn ku ci mën a ñàkk jaaram bi nañu bàmm boobu daal man jaaxal ma trop suma benn ñaanam buñ ne mën nga koo ñaan wala dara boo xam ne dañ ne ku nekk dina ci jaar daal ci mucc noonu la demee wala déedéet wala ku li xalam na benn xaris bi wax day yonent bi sam ne na xabru day am na benn dammo benn lem bu muy lem doomu aadama mu ne bu doon te ne ne am na kenn ku ci mucc Saad ibn Muaz dana ci mucc loolu nag xëy na la nga xam ne moom ñaar moo ci mën a nekk benn mooy vérifier waat xadis ba ban daraja la am donte ne xadis bu siiw la même bu dee ne doon na lu mucc it da ngay gis ne jullit dëgg bu yàlla dara wayafal lem boobu ko xabru lem du ko lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji shahid lu ko mën a rey dafa mel ne yow mi benn sànq lañ màttoon rek nee na noonu lay mel ci moom donte ne mën na am bazuka lañ ko dóor mu tasaaroo kon it li wër ci wér mooy suñu borom la muy def ci maandu teem imma jéggi siraat wala lemu xabru la chaque ne képp koo xam ne nii da ngaa jaar fa neex yàlla loole bu amee it du doon lu lay lor mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam dafa jàng fatiha kese rukkoo bi mu jullee ba jullee gi pare ñu sabbaal ko nanguwul def benn benn sujjuut wala ku di xaal loolu day lam def mu rukkoo la def lam waroon a def mooy dafa waroon a sujjuut ndax même moom bu gëmee ci ne nit ki mën na jullee faatixe kese it ña nekk ca gannaawam gëmuñu ko ca doomu aadama bi li nga gëmul doo ko jaamoo yàlla waaw li ñu ngi may nettali benn ci jeunes yi ci benn jàkka bu amoon fii ci côté Colobane mu jiite tari faatixe kese mi ngi noonu indi fa fitna bu toll ne Ndakaaru ala kulli xaal mbokk dafa am yenn ci ay xadis yoo xam ne dañ koy tuddee xadis yu beru ashawaaz loolu jullit warul nekk di ko jëfe mi ngi noonu bu mel ne Sufyaanu Sawri daana wax ni imam Malik lii la ma doon tere donte ne am na ñoo xam ne njàpp la ñuy dekkal sunna waaye mbokk dekkal sunna bu jur fitna loolu yaa ngi rey sunna sunna daal ñëwoon ngir jubale nit ñi ngir indi jàmm ala kulli xaal daal loolu imam bi def njuumte la mooy bu ko tayee def na njuumte su dee tayu ko dafa wala daalin rek roko ñu ne ko subhanallah bu jullee ba pare dafa waroon a sujud qabla salaam wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw bismillah waaw waaw soxna si dañ koo fase avant iddaam di jeex borom këram faatu dañuy xool fase bi ban façon fase la su dee li ñuy tuddee talaaqu rajiya mooy mooy premier faseem wala mooy deuxième faseem nga xam ne ba tey mi ngi ci buumu jëkkëram fase na ko na am waaye iddaam jeexagul nga xam ne bu ko jëkkër ji doon delloo day wax rek delloo naa ko du aajaat ñu takkar sëy beeg joxe can su boobaa dafay jóge ci idda bi mu nekkoon bi su keroog mu commencé 4 mois 10 jours te it day bokk ci ñuy doon amma bu doonte ne ci ñetteelu faseem la su boobaa da ngay gis ne moom day continuer tënjam boobu mu tënj ca du bokk ci ñuy doon ah waa idda idda bi mu doon idda ca du bokk ci ñuy doon du tënj moom allahuma du dul lenn ci borom xam-xam yi nga xam ne dañ koy cosaanoo depuis Ousmane fekk ne jëkkër ji moo ci jublu xañ ko ndono daal di koy fase ci feebar bi mu deeyee loolee moom am na borom xam-xam yu du tee doon waaye daal ci cadre général mooy fase bi nga xam ne rajiye la mooy benn lu fase la wala ñaari lu fase su boobaa même bu doon un jour moo ci des jëkkëram de day bàyyi idda bi commencé tënji amaa nag bu doon ñetteelu fase ba day continuer iddaam du tënj ca du donn bokk yaakaar naa mën a saa doy loolu bu yàlla dajal waat nii fii subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk